Ah, merci beaucoup. <laughs> ah, les juristes. Ah, merci, Mashallah, Tabarakal. Donc, c'est mon troisième mandat. Nous, nous, ci wax ñun dañu am suñu bëgg-bëgg suñu bëgg-bëgg mooy li si dëkk mu toll les réalisations le bilan du président Macky mm. te ñun moom moom la en que militaire de l'APR mm. ñu investir et l'ensemble des militants de Benno Bokk Yaakaar laa wax. ñoom exclu non c'est pas lu ñu xam nga parfois wax naa sànq lu am solo mais dut nit baaraam njiit wala ñuy jiite seen xalaat dafa war ak mas am na masse boo xam ne ñooñu day ndeysaan peut-être xamuñu peut-être avenir pays fu mu jëm tu vois raison pour laquelle ki nga xam ne moo fi nekk dëkk am jàmm lépp di dox bu def ay jéego même fekkee lépp réglé wuñ ko mu def ay réalisation yoo xam ne di pulaar di wax ene yoo ene mémo ñu ngi koy gis ñu ngi koy làmm donc je pense bu ñu ko yóbbaatee ci troisième ci deuxième quinquennat donc je pense que il faut plus. non ak ñëpp lu mu mën a demee moom moo promettre ñëpp askan wi ñëpp a ñu toog nag damay fekk sama naataangoo juriste bi dégg du ma juriste nag mais dama lay fekk si foofu. Hmm. dañoo am lu tënk Macky Sall. Hmm. lu ko tënk moom tënk ma tënk la yow. Hmm. ñëpp mooy la te constitution sénégal lu mu wax lu solo comme maître Moussa Bocar Thiam juriste la comme yow ci ay kàddam la dafa ne constitution sénégal bi ñu koy interpellé Macky lu mu gore gore gore gore Macky ak lu kàddam riche am valeur constitution bi cadre constitution moo ko bëri hmm. parce que ñu bëri fa lañ koy dénk ñu ñuy argument yëpp bu ñu daanle mooy fan ngorom waru ko muy parce que moo ko mais Macky constitution moo ko république Sénégal constitution moo ëmb lépp te ci biir constitution dañuy wax moom mooy institution moom mooy le gardien kon donc ak lu mënta wax moom mën na am bëgg-bëgg constitution bu ne lii da ngay def da ngay te ñun instant bi nii non ñun ragaluñu ah. nous on est pour le deuxième quinquennat. wax na mu ne sujet verbe complément le deux mandats consécutifs et le mandat est de cinq ans. moo ko wax et waaw non le mandat est de cinq ans. et nul ne peut faire plus deux mandats consécutifs. et su ma xamoon droit mais ci terme français laa lay wax. <laughs> man ci ordre ci ordre français laa lay waxee. ci français contenu français bi. fii doo leen fi wax xam nga c'est-à-dire. yow yow Moussa Fall yow yaa ngi ci sa bopp. xamoo sax mbirum trace des mandats yow xamoo sax loo ci wax. non non non ñun population bi dañ ne doyal nañ xoltuñ bëgg-bëggam. na dem na non non la population n'a pas dit ça. non yéen xam nga yéen yéen. Fatima non non yow bii ko situation xaaral xaaral bii ko situation analyse situation li mës am moo am élection législative ngeen ñëw bu dul woon bu dul woon kii commandé Pape Diop li mu demul si yéen da ngeen tolloo en fait te loolu te loolu ci suuf ngeen ko def lu musul am ci élection yi mooy am mooy wane ni que ni population bi nee rek doyal nañ te gis nga boo leen moytoo xam fan ngeen mujjee ñu dem élection lu ñu defoon Abdoulaye Wade ñu forcé woon ba dem ñu defaat ko noonu ba dem mais gis nga gor ca wax ja en fait moom gor la nañ nañ kii rek population bi mu bëgg na ci nekk lu am tay mooy gor ca wax ja bu ñu ko mooy vaar bi vaar bi war ca wax danañ leen vaar nga waxee interpellé notification ma di ma wax du ma juriste comme moom bi parce que dama naan mais man fa moom ñoo ngeen toog juriste dama ko suñ j'ai lépp xam la constitution moom moo tënk bépp citoyen sénégalais cadre constitution moo ëpp valeur cadre de la et si la constitution dit il est présidentiable donc nous on l'accompagne mais ak local non non déglu yéen a local ba n'a pas perdu peut-être la la yéen da ngeen gis dëkk yi gën a fës ngeen wax ne peut-être ñu on a perdu on a perdu après nous maintenant la majorité absolue la mooy politique politique oto buy dem la ñii dañuy wàcc ñii dañuy yéeg nga ne Pape Diop mais terrain la dafa yéeg bu yéegee continue le serviteurs bu aussi yoo tax moom fa la nekkoon loolu la wax benn ko ko yaakaar day nekkul service yéegul si oto terrain suba tamit loolu la keneen dañoo yéeg si bi ñun tamit noonu la keneen ñëw yegg suñu terrain il faut que ñu xoolee ko noonu maintenant Macky Sall ñun les militants nous prenons le deuxième quinquennat premièrement mais aussi man day xam laa doon ñu ne Macky Sall dafa jéggi cadre de constitution teg mais comme que cadre de constitution la man de alhamdulilah dama ko si sant cadre de constitution lan. si la non non <laughs> écoutez la constitution la position la que nul ne peut plus de deux mandats de cinq le mandat est de ans, okay. il deux mandats consécutifs. Mm. il a fait qu'un seul quinquennat, il reste un autre quinquennat. Un autre quinquennat Et Inch'Allah, on briguer. Briguer, briguer leen ba briguer askan wi ñëw. vous aurez rendez-vous. non <laughs> oh, sama ñaari savant invité yi nga xam ni.